jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne del sot ak yéen ci beneen jotaay xam-xam sëriñ Mamour Seck xaadimu Cheikh Akhibou tey nag ñu fas waxtaan waxtaanee waaye sëriñ bi dama lay bàyyi ngeen nuyoo ma soog a dikk ci mbir yi nuyoo ba pare rek tey dama yàkkatu tey aoudu <laughs> billahi min alsheytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim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 alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yenentu bi sallallahu alayhi di nuyu sumay taalibe di nuyu samay soppe di nuyu suma waajur wu jigéen ñaan yàlla guddal fanam may ko wér di ñaanal sëriñ bi yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem di nuyu àddina bi yëpp fu ñu mën a nekk di leen ziyaara di leen wax ñoom ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di la wax maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi dama bëgg ñu commenter image yi ñuy seetaan mooy keroog bés bi nga doon defal Mawlaya ak Aqibu di ñaan yàlla doole koy leer. amiin yaa rabbi. dama fa gis ñaari mbër. Lac ak Gris 2 sàkku si ñaan ci yow ngir seen komba mën naa la laaj sa diggante yow ak Lac ak Gris ak lak ak lan ngeen jëflante. ci seen bés bi bés yu jógee waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax laaj nga ma ci lu ma sawar ndax jàmbu xeebu bii di wax ak yow lépp lu muy wax ak yow danaan la man maa fekkee maa ko dund ñu ngi sant yàlla bu baax ba may wax muy am du tey ba ma dalee wax muy am du tey lépp luñ mas a wax rek jaamu yàlla yi ñu ngi ciy teg seen bët yi mhm. ku ci mel ni Lagrosse nga xam ne moom moo daan démb mhm. combat am bële paase muy fils de Balla ci la xamante woo nag man mhm. am benn xaritam boo xam ne maa doon ko ñaanal yàlla moom moo ko yebal fii ba mu ñëwee ma wax ko lu bari combat boobu paase yàlla defal ñu ci ndam hmm. ndax loolu kenn yaakaaru ko woon ci moom ndax booba mu booba mu ngi ci xat-xat yu métti man toog fooguma ko woon ba mu paree ma ne ko nag fekk yaa ngi may xam sa mbir dana gën a leer hmm. combat bi mu jël démb nii muy Jackson billahi lazi laa ilaha illaa hu hmm. du waat ci ay fen balaa mu koy jël woo na ma daanaka ay fan yu bari mënul maa jot keroog bi mu ma jotee Mhm. gannaaw gaye la ma jot mu ne ma sëñ fan yi yëpp maa ngi lay woo ndax damaa fasante woon ak yow kol na du ma duggati dara te mhm. joxoo ma ci ndigal mhm. dañ maa bëgg a jox combat nangam nangam ma ne ko jël ko mu ne ma lan ma ne ko jël ko man maa la jox ndigal jël ko di ko daan keroog bés boobu la ko jël yàlla def tamit bés bii ñu yàlla xaasal ñu ci moo Gris 2 yëpp keroog biñ la onze mais bi nga xam ne moom lañ doon def àddina bi yëpp bàyyi ko ci fu ne ñëw ci. Mm-hmm. keroog ñoom bi may préparé wu dem ci jotaay bi ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi ci salle bi di ma xaar. Mm-hmm. ñëw topp sama ginnaaw ba ma àgg keroog ba fii lañ bëggoon tamit ne nañ dem ba ci jotaay bi buñ demee ba ci tànt bi lépp lu ma wax yàlla dana ko def. Mm-hmm. te noonu ko ko waxoon ci bi. waaw ñu ñëw toog ma ne leen fu mu toll nii nag bu leen neexee man ngeen dem Gris 2 ngi toog. lak mu ngi toog ma ne leen incha allahu kii ne ma le vingt six laay bëree giri lak le deux ma ne ko ren moom seen combat yi surtout lak lak lak ma ne ko sa sa combat bi di nga ci daan te ci la turu fas ji yëkkati koo waat ni mu daanee sax sëriñ bi miracle dëgg waaw al am na yoo xam ne mënuma koo nettali ndax moom miracle dëgg dëgg dëgg la lak bi muy dem ci làmb ji dafay génn wooma ma ne ko demal léegi ñu ngi coupé maak yow waaye boo may woowaat maag yow dañuy reetaan ñu ñaar loolu laa ko mujjee wax baat boobu mm-hmm. sant yàlla loolu nag lu tax ma wax ko la fi newoon tey la gën a ne fii fii kër gi mm-hmm. mbóot mi newoon ci jëmm ji tey la gën a sax dafa yokk man sama sëriñ dafa def ci man sama waajur def ci man mm-hmm. ma ànd ak loolu nag àddina yëpp xam ko ma koy jëf nag ñi koy gis chaque jour ma ne la li ma gën a soxla ci doomu aadama buur mooy nit koo xam ne gëm na ne ñaan yàlla amatul lagros keroog bés bi mu njëkkee toog fii demoon na ba gëmatuñ ñaan demoon na ba découragé ci bëree mm-hmm. waaye tey moom ci guddi yi ñu toll kenn ku nekk yaa ngi bébét bëreek moom kenn ku nekk bëgg ngaa xamanteeg moom te incha allahu yoon wi mu jàpp su ko bàyyiwul maag moom ba roi des arènes sëriñ sëriñ jël nga engagement de déggoo ma man de xam naa la ma xay buur <laughs> suñ nee xay <laughs> laay ñàkk xam li mu waral bari na eh, man li may xam naa fi ma ko teg de mm-hmm. Mm-hmm. boo gisee man ñu bëri am na ñoo xam ne suñ gisee may jëflanteeg nit wala ñoom faralu nag nit ko da ngay gis ku ma woo sa artu ne ma sëñ yow dañ laa bëgg te xam nañ ne boo duggee ci dara doo ci am échec mm-hmm. mu nga am yenn ci samay taalibe ñëwoon nañ ci jotaay bi kenn rek mu may yónnee message dem ne ma man keroog bi ma gisee ngay dugg si ñu topp ci sa ginnaaw keroog laa pare mm. aw ma sax ay dut ci ñii dañuy daan duñ daan mm. lagroos bi muy bëree démb gannaaw bi ma waxee moom damaa tëdd di nelaw ci nelaw lañ ma yeeyee ne ma lagroos daan na parce que man xam naa ne li ma yàlla wan nii du du neen te nga dem tëdd nelaw amul problème déggoo li ma la billaahi barke alquran dama ne suñu finaalu suñu finaalu coupe d'Afrique ba dama naan la sëriñ bi a nga xam waaye man de maa ngi nalaw man la sëriñ bi yaa ngi nalaw mooy lal Sadio Mané rate suñu penalty <laughs> waaye yow ngay nalaw nga ne ma buur li ma wax naa koo pare te dara du ko dindi ba man nalaw samay nalaw <laughs> dafa am may yoo xam ne bu la ko yàlla mayee boo xasee ba boo jamono bi ñu koy wax du yow sax mhm. moo tax soo ci paree dama daan gis ca ma waajur léegoo léegi su dog waan ci dara ba ne dana am ba mu wax ko benn yoon soo ko ciy laajaat du la faale sax waa dal nañu bu ma juumul. suñu match contre Angleterre. waaw dañu génn nga ne ma billahi barke bàyyi na Sénégal dañ koy dóor ci oto bi fii ak mm-hmm. àll bu metti man bokk naa ci ñu wañaar sa loxo di wañaar sa loxo di wañaar sa loxo ba nga naa ba nga ni Aziz Ndiaye ah, xanaa ma jéem ci rek waaye man bi nga dogoo fii ba ni ma barki Baye Niass Angleterre daf ñuy dóor keroog laa ci pare. sant yàlla yi ma lay wax ni lu ma dund ak yow laa xam nga gars yi des fois. booy wax ci sëriñ bi sénégalais dafa day waar ay xalaat dañ naan day jay sëriñ bi wala dafa complot moom waaye billaay barke alxuraanu karim lépp lu ma wax mos a wax ak sëñ Maodo maa ngi dund ko billahi wallahi wa tallahi barke sëñ Mbàkke Balla bu leneen amoon it du noonu it dama koy wax. Hmm. man man moom ku ma xamul ko ne dégg nga ma sëriñ bi réew mi commencé naa jaxasoo fan yii ah. ñoom baa jaxatee condamné nañ leen tey. ak euh, oustaz Ima Aliou Ndaw daan leen ku nekk ñetti weeru kaso ba noppi amaan leen ku ne ñaar fukki junni mhm. wala yow jàppante bi gisoo ko danga gis gars yi bàyyi mu sedd wala réew mi de am na lu ma ci xamagum waaye li may teg balaa maa teg dara ci loxo jaamu yàlla yi mhm. bu tabaski paase laa lay indil nag suñ nguur gi ci seen cinq yi lan mooy am ci réew mi mhm. bu tabaski paase jotaay bi ñuy njëkk a def ci laa lay jox révélation li réew mi war a dund ci juróomi at yi sëriñ bi ana jàngatu tabaski ci loolu laa ne fi mu toll nii loolu laa soxla nga laaj ma ko jàngatu tabaski ji sëriñ bi lan la ci lu waaye moom parce que chaque année dañ daan def jàngatu koor def ko bu gàmmu guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam burdu bi ni muy commencé ba ni muy tëjee ba bésu gàmmu ak tabaski ak tabaski hmm. li ko waral mooy tabaski dafa bëri lum làmboog hmm. yàlla def na ci tabaski muy juif muy yëefar muy jullit ñëpp ñu ngi ajowu ci bés boobu mhm. seen xol yi lépp ñëpp xam nañ ne tabaski mu ngi waaj di ñëw mhm. moo tax daanaka ñëpp a koy feete mu nekk bés boo xam ne yàlla def ci dëxëñ nekk mbir yu doy waara doy waara doy waara mhm. gis nga yàlla bés yi mu tànn nii def ko ay feet tànnut ko ci hasard dafa am lu tax loolu nag gannaaw loolu dafay roon dara ci mbóot def ci roon dara loo xam ne mbóot lay doon secret mm-hmm. jegleel ko ñenn ñi càngat boobu mag ñi dañ koy liggéey yow tey mm-hmm. buur géwél nga géwél fekkee nañ lu bari xam lu bari mm-hmm. xaru tabaski du lépp la ñuy lekk déedéet la ñuy léegi rey ba dara nga ne dencal lii am na loo xam ne dañ koy weer ba tam xarit jeex na am ñoom dañ koy denc ba déwét ba tabaski dafa bari tegtal léegi nag càngatu tabaski boobu masuma koo jox nit ba bésu tey bii nit ñëw fëgg ne ma li nga ma waxoon daaw amul wala la ma sangoon gisuma ko képp ku ko sangoo ren balaa déwén alal dafay jóoru ci yow benn mhm. boo ko sangooyee tur da ko am yëkkatiku ña ñetteel ba boo ko sangooyee nit du man ci yow dara dangay mucc hmm. nim ni mbaam muccee ci tabaski noonu ngay noonu ngay muccee ci doomu aadama waaye yàlla dana la jox wërsëg boo xam ne yow doo xam fu muy bàyyeekoo ci xaalam bi mu mën nga ko amee ci ñu weex ni mën nga ko amee ci ñu ñuul mën nga ko amee ci góor mën nga ko am ci jigéen mën nga ko amee ci buur mën nga ko am ci baadoo mu muy boo xam ne du nit di am di ko rëccu hmm. ndax ñun ñu koy liggéey ba nga xam ne chaque at ñu ngi koy liggéey boobaak léegi mu ngi bëgg a fukki at chaque at ñu def ko càngatu tabaski. Mhm. dëgg la man mi am na lu bari lu ma ci fekkee. gàllaaji weeru koor lu mat fukki at ñu ngi koy liggéey gàllaaji gàmmu naka noonu nit masagulaa woo ne la buur Serigne Mamoud li am kay mooy balaa moo jot am na ñoo xam ne dinañ ci bindu ne la bind soxla naa ci nàngam waaye sëñ tabaski fi ni fukki fan. li ci def ak lu teg moo ci des waaw moo tax nag mbir yi su àggee le treize la quatorze rek dañuy arrêté. waaw parce que tabaski bi c'est le 17 bu ma juumul moo tax le 13 diggante le 13 la 14 dafay arrêté. Mhm. waaw moment bii nag liggéey nañ ci lu bëree bëri. baaxawuma sax génnee ko di ko wan nañ ñi. Mhm. dafay mel ni ci promotion laa nekk dama koy wax ñu dégg ko liggéey nañ ci lu bari am na ñoo xam ne GP yi ñu ngi koy yóbbu ñu nekk ci biir réew mi lu ñuy liggéey la ci bidon bu ñëwee ñu jox leen ko ñu dem jëfandikoo. ñoom moom moom jëfandikoo bi da koy jëfandikoo. ci tabaski lañ koy sangoo ci yoor yooru tabaski. benn yoon tabaski ci yor yor tabaski jeex na bésu tabaski nga koy sangoo place bi nga taxaw danga ko fay sangoo ñetti yoon ndax tabaski ñetti fan la ah, maa ngi lay soog a dégg waaw ah ma defe noonu koy jël nii rek boo demee sangoo juróom-ñaari fan fan mu jeex bésu tabaski lañ koy sangoo ci yoor yooru tabaski ñetti yoon ci benn place nga koy sangoo soo paree dina si yoon soo paree rek jeex na ba déwénati incha allah ah sëriñ bi loolu loolu neex maa seerul déedéet ñu ngi ciy yombal bu baax ñu ngi ciy def yomb yomb bu baax a baax. wax parce gàmm moom da nga daan yombal moom. waaw sax gàmm moom da nga daan yombal. ñu ngi ciy yombal de maa ngi koy yombal bu baax. moom daal ku ñëw daal di nga ci am moom. bu soobee yàlla nit moom du ma woote du ci am. Mhm, mhm. xanaa nga ñàkk maa jot. ndax dama ñaan yàlla loo xam ne it yàlla daf ma koo nangul. muy mhm. damaa ñaan yàlla soxla bu na aajo bu narut fajoo ci jaam bu xeebu bii man kooku yàlla bu ma ko gis yàlla bu ma ko dégg. yàlla bu ma jëflanteeg moom. Mm. lii ba ma koy ñaan yàgg na. yàgg na man mii daan na lu ma ci fekk. yàgg na depuis jamonoy Noor Faar ba tey ji yàgg na trop. waaw yeneen sëriñ sax mel na ni ci yow sax la ko déggee. ba di ko koy wax léegi. <laughs> sëriñ ndax xam nga sëriñ Mamoud. Mm-hmm. ñu bëri sax dañuy xaar mu wax pour ñu mën a copier ci waxoom ñoom am luñ ci yokk. Mm-hmm. ndax waxtu waxee wax wax bi muy wax ikk ma lay doon. mu nga am benn sëriñ dafa mas a dégg ma wax benn baat. fekk ñuy waxtaan ma ne ko man mun a ma ne ko ku junnee nit yaakaar benn nit warul laa fontoo kooku dafay wax jooju daf koy répété bi daf koy ne naa koo def audio pour yónnee mu ne ma ku la wax lii ne ko wax ji de wax la ikk ma xam ne la dafa dafa wàcc ci man rek hmm. mu ne ma la waxaat ko ma ne ko ku junnee nit yaakaar benn nit warul laa fontoo dëgg la te loolu nag mooy dëgg kooku mooy sëriñ buur tey sànq ci ngoon wax naa gàllaaj boo xam ne hmm. nit buñ xamoon la ci gàllaaj nit ñi xamuñ gàllaaj ba léegi hmm. xam nga luñ foog gàllaaj mooy ci xumbaay ci ñàngaay waaw nag ñàng nag xonq fii pitaawi jàllaañoo bay jën bi fii mais gàllaaj léeg-léeg nga jaxasoo koo xam ne doo ko gis dara ci yaramam ci lu mu takk wallaay boo ko laalee rek dem laafi si la hmm, boo ko laalee jooy waxuma jooy de boo koy laal boo moytu ñu tàggale suba kon ñaan yàlla dëgg la ñaan yàlla def na lu nekk waaye man na lu nekk hmm. jaamab yàlla bii nag bu xeebu bii di wax ak yow mu ngi sant yàlla bu baax ci yàlla may gim ko may hmm. xam ne jamono tumuraanke ne waaye ku ko xam man leen danaa koy wax ma man de man jaam bu xeebu bii nit yéex maa xam lay rëccu waaye xamante ak man ci doomu aadama doo ko rëccu ndax hmm. li ngay sàkku boo ñëwee da nga ko fi fekk yal yàlla dimbale ñu yal na yàlla sàmm ñu ca nga tabaski yi mu ngi noonu incha allahu la treize daal fu mu jotee wala la quatorze dañ ci arrêté waajali tabaski ba déwén ñi ci yàlla def ñu am ko yàlla dina ci def barki ku ci yàlla def amoo ko it nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee liggéey bi nag mu fi daayi man xam-xam bi mu ngi fi ci lépp nag ci lépp ci kaaraange ci musluwaay ci bayra ci fal doomu aadama ba ci réew mii ci jamono yii am na loo xam ne su ko nit fàggandiku doo am dara ndax dëgg réew mu nekk njiit lu nekk am na raw la mu gën a bëgg ñu koy def suñ koy def day méngoog ñun ay bëgg-bëggam boo gisee réew mi di am jafe-jafe mooy raw ki fi ne mhm. raw ki fi ne nii mhm. ak jaamu yàlla yi seen raw xaani ndax xamaguñ moom raw xaanam lam gën a bëgg mhm. te loolu suñ koy def yomb yomb bi dafay ne ci moom te moom bu nee ci yomb-yomb réew mi seen biir dafay yomb salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi loolu la buur géwél àndoon ak équipe bi pro ñëw tey fii ci Serigne Mamour moom Cheikh Aqibou Ibrahim xam naa di leen jox daj dig daje rek ci yenn numéro ci biir bi Pro Média